mbokk asalaamaaleykum ñoo des waat ak yéen seen télévision nationale jot leen xibaar ne taatanal ci suba ak léegi ci bopp xibaar yi tolluwaay Covid 19 ci réew mi dinañu déglu nga xam ne moo jiite la jëm ci wàllu wérgu yaram fi ci Sénégal waaye tamit dinañ dem ba chor ak euh, Kaolack ak euh, Tamba ñu xam rek euh, tolluwaay bi foofu naka la fa demee girub ñaari weer bi feebar bi duggee ci réew mi ba ndëgëne ñaari weer yi nga xam ne mënuy xeex feebaru coronavirus mu jëm nag ci wàllub koom gi faaw ñu jàppale bërëbu liggéeykaay am ay jafeñ-jafeñ taxaw nag ñi nga xam ne seen loxo jotul seen diggu ginnaaw aar liggéeykat yi waaye tamit jàppale ñi nga xamante ne rek ñoo nekk ci bitim réew di fa daan seen doole euh, junneeb milliards suñu koppar la jar na ñu tuddee ko fonds de riposte force covid 19 nañ ci dellusiwaat ci anam yi mu gën a yaatoo mbokk ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci taamu bi ngeen taam seen télévision nationale RTS ngeen di fi topp xibaar yi tolluwaay Covid 19 fii ci euh, réew mi tey jii euh, di ñaari fan ci weeru mai ñu jàpp rek ne ci junne ak téeméer ak juróom-ñeent fukki test yu ñu réalisé juróom-ñeent fukki ak benn ñoo ci euh, positif juróom-ñett fukki ak juróom-ñaar ñi nga xam dañoo jaxasoo woon rek ñi ko am ñeent ñi mooy ñi nga xam dañ ko am te xamuñu fu ñu ko jëlee ñu déglu si Xemes Ngom Ndiaye. tey bésu ñaari fan ci mois de mai bu 2020 jot nañu résultat examen virologique yi ñu leen di bëgg a jottali ci junni ak téeméer ak juróom-ñett fukk test yi nga xamante ne réalisé nañ ko juróom-ñeent fukki ak benn dellu si nañu am doomu jàngoro ji ci yooyu mun nañu wax ne juróom-ñetti fukk yi ak juróom-ñaar mooy li ñuy wax contact mooy yi nga xamante ne suñu bërëb liggéeykaay yi ñoo koy saytu ñeent ci ñoom mooy ñuy wax ñu ngi jóge ci transmission communautaire ñu ngi ci diggante Grand Médine am na benn Rufisque am na benn Touba am na benn Mbacké itam am na benn ci malade yi nga xamante ne ñu ngi hospitalisé fukk ak ñeent bañ leen saytoo gisatuñ ci ñoom doomu jàngoro ji wër nañu am nañu ñeenti cas grave yu nga xamante ne ñu ngi leen di faj ci service réanimation yi ci l'hôpitalu fan ak l'hôpital principal ñi nga xam ne ñoo tëdd foofu ci hôpital yeneen yi seen wër gu yaram mi ngi am tan ci bésu tey bii ñu natt ko ne am na ñaari weer bi nga xamante ne mbas mii ñu wax Covid 19 dugg na si suñu réew ñu ngi toll si junni ak téeméer ak fukk ak juróom yi nga xamantene ñu ngi and ak doomu jangoro ji ci yoy itam ñetti témèr ak juroom benn fukk ak juroom ñett kenn gisatul ci ñoom doomu jangoro ji wër nañu juroom ñent genn nañ adina benn delo nañ ko ci dëkk bi mu joggé won légui ci ñi ñuy fajj ñu ngi tollu si juroom ñaar témèr ak fanweer ak juroom ñaar niñ koy défé bëss bu nekk ñu ngi ñaaxaat askan wi ñu gën a topp digteel yi nga xamante ne bu ñu ko defee mbas mi du duggati ci suñu réew te du wàllaate te dina fi génn mais bu ñu yokkee ci loolu équipe opérationnelle maanaam mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci terrain bi ci gox yi di liggéey tàmbali nañu li ñuy wax recherche active mooy léegi dañuy gën a dugg ci poste de santé yi centre de santé yi ba ci hôpital bu ñu ubbee li ñuy wax registre mooy jumtukaay ba nga xam ne ku ñëw fa lañ lay bind. dinañu seet lépp lu fay nuroo Covid 19 waxoon nañ leen ko lu xaw lu nuroo grippe bu ñu ko gisee dinañu wër équipe technique ànd ak acteurs communautaires yi wër fu nekk ba fexe ba gis contact à haut yi ak contact à bas yi maanaam léegi ñëpp la ñuy seet ci contact yooyu wax ñu nag dañu dugg ci biir askan wi di wër recherche active la ñu wax. bu ñu leen gisee dinañ leen prélever yóbbu ci laboratoire yi xool ndax am nañ doomu jàngoro yi def li niko ko kilifa gi ministre de la santé waxe legui ni amat nañ tam benen stratégie ndax gis ngeen ne mbass mi mu ngi wal te bu yagge hôpital day fess motax ñu ne and ci kàngam yi nga xamantene ñoy fajj wax ne ñi nga xamantene ñi ngi teud ci hôpital waaye ñoom yëguñu dara mais gis nañ bu baax ne sen yaram amna doomu jangoro ji dinañu organiser wu ba génne len ci hôpital bi ba nga xamantene dinañ gëna ay place yi nga xamante ne ci la ñuy teg ñi nga xamante ne mooy li ñuy wax cas grave ak ñu am doomu jàngoro ji te ragal ne dañuy gën di gën a law maa ngi leen di gërëm di leen di sant monsieur le ministre maa ngi lay gërëm. ci loolu docteur Khémesse ngoom Ndiaye wax nag foofu la ñuy ànd ak jawriñ ngi ci ay leeral mu jëm nag ci ñi nga xamante ne rek dañu yëg seen yaram ne am nañu feebar bi waaye amul dara lu metti lu koy mandargaal ñu déglu ab lay Sarr. ministère la santé et de chaque fois bu mbir mu évoluer day changer ay stratégie adapter adapté ko méngale ko ak fi mbir mi toll ko ak changement yi ñu gis ci feebar bi méngale ko ak taxawayu jangor bi lolu yeb nak ci ndigalu président de la république motax tay ñi ngi encourager bu baax comité national de gestion des épidémies di len féliciter di féliciter aussi groupe opérationnel bi ak képp koo xamante ne ngi nekk ci dispositif Si ci orientation yoyu amna na benn bu ci bees leen di yëgal moy demande nañ comité national de gestion des épidémies ak euh, comité opérationnel bi ñu duggal ci seen jumtukaayu xeex lu ñuy wax euh, prise en charge extra hospitalière des cas asymptomatiques moy kep peut xamantene da nga am cas te amulo symptôme man nañ la jël en charge fo xamante du hôpital ñuy wax né dynamique multisectorielle moy euh, lu ñepp bok moy lu ñepp di yego que moy système de santé ak beneen système n'ek na lo xamante moy atu majeur bi xamante moy tax euh, ñu gagner mbir mi dynamique bobu collectivité locale bok nañ ci moi maire délégué de quartier ASC mais aussi les forces de défense et de sécurité je les au passage d'un rôle bu am société civile secteur privé et de nous, ñuy wax nous, bi nous, ñoo lu jëm nag euh, ci euh, junne ak euh, fukk ak juróom juróomi kaw coronavirus moom la Sénégal am ñu jàpp rek ne ñi ko am toll na ñaar fukk ñaar juróom ba ñeen fukki at ak juróom maanaam téeméer bu nekk ñeen fukki ya ak ñaar ñu jàpp rek ñi nga xam ñoom lay lor ñu ngi am juróom benn fukki at lu teg waaye nag paj bi dafay wuute ndax nak bu fekkee da nga teel a dem kër docteur rek euh, mën nañ la faj jiirub juróom-ñetti fan waaye nak euh, bu fekkee da nga yàgg dafay indi ay euh, jafe-jafe ñu déglu si docteur Abdoulaye Bousso ak professeur Moussa Seydi. ci wàllu gox yi nga xam ne ñoo am feebar bi ñu ngi woon ci juróom-ñaar léegi jàll nañ ci juróom-ñett gox région yoo xam ne am nañ ko si suñu district yi nga xam ne aussi ñu am ci Sénégal ñu ngi woon si ñaar fukk ak ñeent léegi ñu ngi jaar si ñe fanweer ak ñett. région yoo xam ne am nañu euh, kii bi feebar bi ci wàllu góor yi ak jigéen yi nga xam ne ñoo am feebar bi presque dañu dañu méngale parce que li ci góor yi ñoo ëpp tuuti jigéen yi mais bu ñu xool ci statistique bi presque benn la feebar bi nag ñi mu gën a laal si suñu euh, si suñu statistiques yi mooy ñi nga xam ne dañoo am juróom ñaar fukk ak juróomi at ba ñeent fukk ak juróomi at bu njëlee téeméer bu ne ñeent fukk ak ñaari ñoo am feebar donc ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo gën a am feebar bi donc gis nañu ñi gën a nekk xale lay gën a jàpp suñu xoolee ci xale yi tout tànk yi entre ñi am euh, ba juróomi at foofu buñ jëlee téeméer bu ne juróom rek ñoo ko am suñu demee nag ci mag yi ñi nga xam ne am nañ juróom benn fukki at topp suñu jëlee téeméer fukk ñoo am feebar bi gis nañu aussi ci foofu juróom ci mag yi nga am euh, juróom-benn fukkaat fa la ñi faatu surtout nekk. gis nañu aussi ci feebar bi am nañu ñaari ñoo xam ne wér nañu ba ñu génn ñu defal leen seen test ñu amaat feebar bi dellu si waat beneen mbir bu am solo aussi ci feebar bi mooy dañu gis ni dafa am ay nit yoo xam ne dañuy wàll ñu bari moom lañu naan cluster di nga gis benn nit bu wàll lu ëpp euh, ñaar fukki nit te loolu am nañ ci lu mat presque fukk ak ñeent ñoo xam ne bu ñu xoolee lim bi ci téeméer bu ne euh, ñaar fukki la ñu wàll donc euh, lu am solo la rek euh, ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru février ci la ñu njëkkoon gis cas suspect bu coronavirus euh, ba ndege ni euh, institut Pasteur ñoom nag def nañu lu toll ci fukk ak juróom benn junne yu teg ñetti téeméer rek ñaar fukk ak juróom ñetti test yu nga xamante ni rek dañ ko lawal ci yeneen dëkk yi ci réew mi ci biir loolu nag sami national desul ginnaaw ndax moom tamit moom mooy yóbbu ak it di hospitalisé ñi nga xam ne dañu mooy cas positif yi ci biir loolu nag ci ay leeral dañ ci ànd ak docteur professeur Amadou Dia Diarra Bèye mom mi xamou jité Sami national ak Alpha Amadou Alpha Sall di directeur bu institut Pasteur bu Dakar. tay ñoo ñaari wèr depuis mbass mi dugg Sénégal euh, ci ñaari wèr yoyu ka bi nu njëkk testé mo di ka bo xamni dañ ko indi ci walu mbass mi ñong ko testé le 26 février. 26 février ka bi nu njëkk am mu nekk kaw mbass mi mi ngi am le 2 mars et que bobu ba légui ci biir Dakar ci laboratoire bi nekk fii ak ñaari laboratoire yu ñu def Touba ak Kolda ci ndigalu ministre de la santé ngir jegeel mbir mi ci population yi ba pare euh, mën a mën a yombal liggéey bi ci région yi ñu def benn laboratoire Touba ak benn Kolda euh, laboratoire yépp boo boolee seen lim euh, testé nañu fukk ak benn junni ak ñetti téeméer ak Euh, ñaari ak ak ñaar fukk ak euh, juróom-ñett mooy li ñu testé yëpp ci institut Pasteur loolu bu ko xayma laboratoire Dakar rek testé na fukk ak ñaari junni ñetti téeméer ak fanweeri benn prélèvement bu Touba testé ñaari junni ñetti téeméer ak ñeent fukk benn yu jógee jurbel Louga Fatick Kaolack Kaffrine Matam Tamba Kédougou ak Sédhiou waaye bu Kolda bi itam testé na junneeg juróom-benn téeméer ak juróom fukk ak juróom-benn ci région wu Ziguinchor Tambacounda Sédhiou ak Kolda. ñu bëgg wax ni feebar bi fi mu toll njàngat min si am si weer yu ñu génn mooy test yi yokku na bu baax mën na ni buñ doon testé benn tey ñoo ngi teste juróom-ñeent. te loolu li ko indi mooy surtout stratégie bi ak yëgal bi nu jox pour ñuy yokk investigation yi ci biir communauté yi ndax loolu moo fi jëlee feebar bi képp ku nu gis ñu mën ko identifier jël jumtukaay yu war pour feebar bi ak chaîne bi taxaw ci wàllu woowu. ma taxaw tuuti rek si euh, rôle bi nga xamante ni euh, ministère de la santé dénk na ko SAMU si prise en charge bi si épidémie bi mooy d'abord moy appel yi nga xam dañ koy jot appel yoy sax suñ koy jot ñun sax loolu suñu liggéey la waaye ci ministère de la santé ci bir épidémie am de benn cellule d'alerte buñ fa taxawal bi nga xam docteur Elage Hadj Mamadou Ndiaye moko jité ñun suñu joté alerte yoy nit ñu fièvre dinañ leen fajj dinañ apporter suñu réponse waaye dinañ leen ko envoyer ñom ñoy def liggéey bi si war mooy valider mais également euh, dal di digtal district yi ñu def prélèvement yi té légui nak ci li ñi dellu ci wat ñun cas yi nga xamanteni positif nañu

beneen fàll boo xamante ni tamit nañ si liggéey mooy transfert yi nga xamante ni mooy malade yi nga xamante ni ñi ngi réanimation wala ñi nga xamante ni ñi ngi si centre de traitement yi yenn saa yi dinañ soxla scanner dinañ soxla tamit dem dialyse su boobaa équipe bu SAMU yi dinañu intervenir pour yóbbu leen encadrer pour que euh, liggéey bi euh, jàll jaar ni mu war a ni mu war a jaar. léegi si tey bi ñu seetlu ba léegi nombre de cas grave yi ñuy woowee cas grave yi ñuy jël en charge au niveau national 23 la. te suñu xayma du euh, 23 mooy ñaar fukk ak ñett am na 18 yoo xamante ni Dakar la yi des si région yi la maanaam ñëpp sax demuñu réanimation ñaari fan ci weeru avril ñaari fan ci weeru mai benn weer ngi Tambacounda dalaloon kaam bu njëkk bu Covid 19 juróom-ñaar téeméer yi test amal nañu ko juróom-benn fukk ak ñett ñoo ci positif woon fukki ak benn ñoom wér nañu juróom fukki ak ñaar jamono ji ñoom la ñuy euh, faj ca Tambacounda Thioro Niang lép fii la tàmbalee ci village bii ñu duppee Kanhambe nekk ci département bu Goudiry ñu ngi ci ñaari fan ci weeru avril euh, kii nga xam ne nag ab sëriñ la daal di feebar ñëw ci fi nga xam ne mooy dispensaire ñu daal di koy testé rek mu am li nga xam ne mooy doomu jàngoro ji fii nag la lépp déparé waaye du fi yem ndax dina am yeneen ñaari village yu nga xam ne ñu ngi leen di duppee Dendo di ak Fete Ñebe ñoom tamit dinañu am ñu nga xam ne ay cas contact la ñu am doomu jàngoro ji waaye nag test yi dañ ko yaatal bu baax ngir rek képp ku nga xam ne am nga doomu jàngoro ji ñu mën la mën teel a prélever mën a faj ci lu toll ci 700 prélèvements def nañ ko 63 la ñu jàpp ni ñoo am doomu jàngoro ji tey jii lu toll ci 11 ñu nga xamante ni rek feebaroon nañu wér nañu mën nañ jàpp ne 52 ñi ngi nekk rek ci traitement ci foofu nga xam ne mooy centre agréé bu hôpital régional bu Tambacounda. ci ñooñee nga xam ne nag am nañ doomu jàngoro ji am na ci kenn ko nga xamante ne kenn xamul fu mu ko jëlee moom la ñuy duppee cas communautaire moom nag ay contact am ñi ngi ko def ci yenn ci yu nga xamante ne rek ay hôtel la nekk ci mooy commune bu Tambacounda ci guddi yi li ñuy wax confinement maanaam tëj village bi ñi ngi koy def ba tey ci fi nga xamante ni mooy fete ñebe mën nañ jàpp ni foofu la doomu jàngoro ji des fi mu ne nii waaye ñaari diwaan yii di Hankambe ak Dendoo di ñoom dindi nañu li nga xam ne mooy confinement bi ci ñaari bës yi ñi nga xamante ni nag weesu nañ ko mën nañu jàpp ni daal am na ab dal gu am solo ci wàllu ñi nga xam ne ñooy am feebar bi ndax ci 82 prélèvement yi nga xam ne yóbbu nañ leen ci laboratoire yi dara dellu siw ci am doomu jàngoro ji ba tey jii euh, diwaanu Kaolack ñoom juróom-benn kaa rek euh, la ñu am euh, seen kaa bu njëkk nag ñoo ko dalaloon ñaar fukk fan ak ñeent ci weeru avril ni ki boobu nag kilifa yi ñu ngi def seen kéem kantam ngir aar nit ñi waaye tamit fexe ba feebar bi du falaw Claire Diop. opération coup de poing ci département bu au filet. ci Kaolack bi mbas mi contrôle circulation ou autoï, yi ak ni moyen de transport yi dañ ko ni bu le dem tigori d'ingelou, mos di Ngélu ak face ngir rek saytu dem ak dikbi bi amnak ay moyen yu bari nga xamanteni, gendarmerie jël ngir rek opération bi ni mel. mooy ñi nga xam ne nii dañuy jël seeni moto wala jël seeni oto surchargé ko duñ ci def nombre de passagers yi leen wax wala ñuy rokkos ko ay marchandise ba fees ci oto bu nga xam ne nii ay nit la waroon yëpp wala mu nekk moto bu nga xam ne nii dañ ci yëpp dañ ci supporter nit ak yëpp lépp ci leen te xam nañ ne bu ñu jaaree ci xàll yi mooy les routes nationales bu ñu ci jaaree nañ leen jàpp parce que amul benn circulation léegi nag ñoom ñu préféré dugg ci diggante dëkk yooyu wax nañ ñu fi léegi ne nit mën na jógee région Kaffrine dem jaar région Kaolack dem ba région Fatick te du jaar ci benn route nationale. mu am nag ay auto moto Jakarta ak charrette nga xamanteni japp nañ leen ndax teguwuñu ci yoon askan bi ñu ngi leen di woowandi ngir rek ñu gëna mëna jël seeni responsabilité fexé di lekkelo ak tak der yi lolé seen kaaraange rek tax. il faut que nit ñi seen bopp xam ne ñun ñoom la ñuy liggéeyal ñoom la ñuy liggéeyal parce que ñoom buñ bu fi ñi ñu nekkuloon ñun duñ fi nekk fii ñoom la ñuy liggéeyal ku ne sa ngor sa taar la bëgg gannaaw ñoom la ñuy liggéeyal nag ñoom je crois que ñun lañu waroon faral mais waruñ faral ñu nga xam ne nii musiba lañ leen di ku nga xam ne nii xamoo fu mu jógee xamoo lu mu yore xamoo ndax feebar na wala feebarul muy jaar ci sa tëkk bët ba set di dugg ak génn te buñ defee opération pour kar ko pour jàpp ko yow nga jël sa téléphone di ko woo ko attention gaañ ci yoon wi yaa ngi rey sa si yeneen i département yi opération yi amal nañ ko diirub ñetti fan li ni mel nekk lu am solo nag ci tàng yi nga xamante ni cas avéré coronavirus té ñu jëlé ko ci transmission communautaire mu ngay wëy di gëna bari fièvre bi di mbas mi nag ñu seetlu ne ci région bu Kaolack Claire Diop ñaari weeru xeexu coronavirus mu doon nag lu nga xamante ne rek feebar la buy gàllankoor waaru koom gi kon te dak fokk nag mu am yenn barabu liggéeyukaay yu nga xamante ne rek ñu leen di jàppale ak yenn njaboot yi nga xamante ne foog ñu taxawu leen taxaw tamit suñu mbokk yi nga xam ne nga ci bitim réew dafa daan seen doole loolu nag junneb milliard ci suñu koppar la jar ñu tudde ko fonds de riposte force Covid 19 Aram Ndaw mbas mi ba mu duggee Sénégal ñaari fan ci weeru mars ba léegi daal loofal koom gi këru liggéeykaay yu bëri yëg ko naka noonu yenn ci borom kër frontière yiñ tëj moom soo xel secteur yu jëm ci tourisme hôtellerie restaurant yeeg commerce yi gàllankoor gi rëy nguuru Sénégal taxawal ab fonds force Covid 19 dugal ci junni milliards loolu lépp ngir jàppale këru liggéeykaay yeeg yenn kër yi. programme buñ ci taxawal jublu bu baax ci këru liggéeykaay yi nguur gi baale ay bor yuñ ko yore loon ak yenn payoor yu jëm ci lempo yeeg taxi yi loolu ngir yokk leen koppar ba ñoom it ñu mën rekk te liggéeykat yi bañ a dàq kenn ci beneen wàll nguur gi génne juróom benn fukki milliards ak juróom ñeent jagleel ko dund gi muy ceeb diwliñ saabu ak pat yoo xam ne da koo jënd daldi di ko jébbal benn million ngi kër muy kër yoo xam ne feebar bi naroon na leen a gën a lootal. ñaari weer yi Sénégal dëkkee xeex ak coronavirus gi nemmeeku nañ ci tamit jàppandal gu jëm ci tourisme ak transport aérien juróom-ñaar fukki milliards ak juróom-ñaar moom lañ leen jagleel. transport terrestre ñoom it ñu daal di leen jox juróomi milliards. doomi Sénégal yi nekk bitim réew ñoomit boole nañ leen ci gersu gi. fukki milliards ak ñaar la leen nguur gi jàppale Covid 19 yemul kon ci naxasal wérgu yaram gi daanaka fépp ci àddina bi poos yi dañoo bënn naxasal na kon koom gi bu baax a baax nguur yépp jóg ku ne def ci li nga mën fii ci senegal lu mujj lu Sénégal def moo ni daal di fay yenn facture yi mu diggee woon ci premier mai bi feetu travail ñu bëri ci ñu yore woon compteur Woyofal gis nañ ne seeni facture daal nañ koy fay. lejam nak eh, ci ñenti diwan eh, muy Ziguinchor da seju ak kunda jaww bu ñu denk wal wer gu yaram dem na fa ngir xol eh, tol tolluwaayu Covid 19 ci pa ben fan lool nak nek lu nga xamantene rek lu am solo la juroom ñetti waxtu la ko def ci ab bu l'armée bi suñu nat nga ibrahim ndong nga won ci biir ba. jaar ci jeri ji wala sax ci jawu ji ngir daldi di amal mission bu am solo numu gëna gaawé ñu ngi fi nak

daal di yëkkati ay kaddu wax leen li nga xamante ne andi nañ ko fi ci ay matériel ak li ñu fas yéene defaat ci wàll wi. parce que après les premiers cas confirmés. li euh, nga xamante ne dégg nañ ne feebar bi am na ndakaaru ci la ñu daal di jël suñu motukaay yëpp euh, ci loolu sax la ñu daal di aménager batiment bi ngeen di gis ni muy batiment boo xamante ne daanaka kenn nekk fi woon ci loolu ñu daal di fi xëcc courant bi. le centre bi liggéey bi vraiment mu ngi doxee mu mucc ayib euh, gis nañ fi personnel bu engagé ñi leen diriger tam am engagement bu mat mais aussi si comité régional de gestion bi gouverneur bi moo ko diriger. mais bu faire nag mbir mi lu il faut déjà que au plan psychologique nous armé wu pour aborder les choses dans la durée aborder les choses dans la durée c'est avoir l'état d'esprit d'endurance mais lool nak ñun ñoo si wara gungé gunge effectivement ñi nek si terrain bi may féliciter bu baax tout le personnel de santé li ñu ay kaddu yu am solo naka nonu ñu daldi di buteli Kolda waye biñ fi yexé ñu daldi di taxaw liko waral moy bla ngay dugg si dëkk bi fa nga raxas sa loxo ba nopi ci nonu ñu wuteli fi nga xamantene nak modi di hôpital bi graw biñu défé turbi tour bi ba nopi ñi nga xamantene ñoo di wa keur docteur di def situation bi nga xamantene ne fi daldi nek Ces derniers temps, les cas commencent à augmenter dans la région. Au départ, on n'avait que 7 malades. ci fan yu mujj yi nag dañuy faral di gis ne li nga xamante ne moo di lim bi dafa daal di yokku loolu ci région bi ndaxte bi euh, Sédhiou amee dañoo gis ne ñenn ci ay malaadam dañ leen di transféré fii ba tax na lim bi euh, day yokku ndaxte ci njalbeen bi juróom-ñaar la ñu amoon. Euh, fourni en patient. ci loolu ñu daal di wutali fi nga xamante ne moo di Sédhiou fii nag bi ñu fi yegsee dañuy gis ne am na ay matériel yu am solo yoo xamante ne baaxee nañ leen ko ngir gën a xeex mbas mi bu baax a baax donte nag ñu ngi leen di jàppale ci wàll wi waaye nag Sédhiou am na benn problème boo xamante ne am na ko jamono ji mooy nombre de personnel am bi jamono ji dafa doyul. j'aimerais quand même faire parce que le grand souci que nous avons. ñun nak njàqare bu mag bi ñu am moy fi nga xamantene modi moo di Sédhiou dañoo manqué lool euh, lii di personnel médical ba taxna équipe bi nga xamantene moy xey mo fi nekk ñoom rek amul kenn ku leen di remplacer té loolu nak bu yagge dina mëna a jur musiba ci li nga xamantene modi moo seen liggéey. cette pandémie vraiment nous avons euh, un besoin criant en ressources humaines. Tambacounda mon kon étape mu mujj bi nga ministre de la santé et de l'action sociale def na bu fi yegsee mu daal di ñi nga xamantene ñoo di personnel de santé bi ba nopi chilolo di leen deglu ci lolu mu dellu ci ci li nga xamantene gisé nako ko seen euh, nous avons eu 720 contacts suivis par rapport. ben cas bi nga xamantene amon nañ ko fi ci Tamba daal dinay euh, am ay cas contact yu toll ni ci 720 personnes euh, ci lolu nak euh, biñu défé ay prélèvement ci lu toll ni ci 694 doomu adama biñu xolé xoolee résultat yi lu toll ni ci juróom benn fuk ak ñaar dañ leen dal di testé positif. nous avons eu 11 guéris. félicité bu baax di gërëm gouverneur ci engagement ci détermination ci pragmatisme di jël nuyoo di ko teg mu joxal ma comité régional de gestion bi yëpp parce que moom moo koy piloté parce que combat bi c'est un combat multisectoriel du bëri ñoo ko bokk may encouragé di féliciter médecin chef de région bi ak tous les médecins chefs de district ak personnel de santé bi yëpp ci diiru juróom-ñetti waxtu ministre bi daal di def lu toll ni ci ñeenti région muy Ziguinchor Kolda Sédhiou ak Tambacounda lépp rek ngir daal di évaluer li nga xamante ne dispositif bi fi nekk muy mission fast track boo xamante ne tax na ba ministre bi am lu mu bëggoon léegi nag mu daal di dellu si fi nga xamante ne moo di Ndakaaru fas yéene wooye liggéey bi donc yi ñu ngi daloo xibaar yi jëm ci wàllu mbas bi euh, saa su nekk RTS nag dafa am ab euh, jumtuwaay bu am solo gumu teg ca dalu jëriñ gu ñu denk wàllu wér gu yaram ngir nag téléspectateurs yeeg auditeurs yi jotundoo euh, ci xibaaru mbas mi bis bu yàlla sàkk Ibrahima Diédhiou. ci tàmbali bi ba léegi RTS mi ngi jox ñi nga xamante ne ñooy sénégalais yi xibaar yi war si mbirum coronavirus su njëlbeen ñu ko doon def en direct si RTS 1. laataa ñuy jàll si RTS 2 képp kuy seetaan di nga mën a xam mbir yi fa mu toll. ñaata cas moo am Sénégal ñaata lañ fi faj ak ñaata ñoo nekk si biir hôpital yi RTS jël ay matuwaay yu am solo ci ministère de la santé et de l'action sociale ngir fexe ba sénégalais yi bés bu nekk en direct ñu mën a déglu li nga xamante ne. mooy communiqué bi nga xamante ne moom la jëriñu ministère bi di joxe yeneen i rajo yi nga xamante ne ñoo nekk ci service public wala ci privé bi da ko jàllale itam ci français wala ci yeneen i kàllaama wolof jola séeréer ñaako wala yeneen i làkk ku nekk mën naa am xibaar ci li nga xamante ne moo di Covid 19 bi ngir gën a moytu li tax muy law. feebar bi tax na ba ñu bëre dematuñu liggéeyi waaye taxul ñi nga xamante ne ñoo nekk ci RTS ñi ngi def seen kéem kattan. ngir fexe ba sénégalais yi xam lépp ci mbirum coronavirus bi la guddi gu nekk mbas bi dina dajale ñi nga xamante ne seen xam-xam màcc na ci yor gu yaram jox kàddu gi sénégalais yi nekk ci bitim réew ngir ñu xam naka la ñuy dundee feebar bi la foofu. ni ko docteur yi di defee noonu la ko RTS di defee ni ko docteur yi di defee noonu la ko RTS di defee saa ne ngir fexe ba sénégalais yi ñoom ñëpp ñu ànd xeex bi nga xamante ne moo di coronavirus bi tax mu dellu